الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu xutba tey mooy asbaab qaswatul qalb wal xilza
walfasaza sunu xutba tey mooy sabab yi tax tey doomi aadama yi jullit yi seen xol yi wow seen dënn yi tàng jikko yi ñaaw yàqu loolu lan mooy sabab bi chaque jour bu ñu gisee lu am nit ñi war nañ cee def ay jàngat lan moo tax nit ñi seen xol yi wow ba rey gi ñuy dégg jëf yu ñaaw yu bon yi melokaan yu yàqu yi te nu nekk ay jullit dëkk bi fees dell ak mbon loolu dafa am ay sabab sabab yooyu nag war nañ koo wax ba ñépp xam ne lii la su ko defee bu ñu xamee feebar bi ñu jéem a ut garab gu koy faj sabab yooyu mbokk yi bu ci njëkk mooy al ghafla an zikrillah wa tadabburu al quran wa taamul fi ayatihi al kawniya sabab bi njëkk bi tax xol yi wow mooy ñàkk a jaamu yàlla al ghafla an zikrillah ñàkk a tudd yàlla téere bii di alquran ñàkk koo def sunu kanam di ko jàng di ko jàngalante waaye di ko settantal jéem koo wàcce ci sunu dund ñetteel bi mooy ataamul fi ayatihil kawniya ñuy tekkaaral di settantal kéemtaan yi nga xam ne moom la ñu yàlla defal ci univers bi ci àddina bi ñett yi ñàkk giñ ko ñàkk a def bokk na ci li wowal xolu xolu jullit yi tey loolu lan mooy dalil bi mooy sunu borom moo ko wax ci alquran borom bi moo wax ci suratu taaha aya 142 wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka wa naxsuruhu yawma alqiyamati ama wa man arada an zikri sunu borom nee na téere bii di alquran ma wàcce ko seen kaw saa yi ngeen ko dummooyoo rek di ngeen dund dund bu karaj comme dund bi nuy dund tey léeg-léeg ñu wax nit ñi lan mooy karaj lan mooy maisatan danka dund gu karaj dund gu neexul dund gu métti léeg-léeg buñ ci joxe misaal ñu ne benn waay day commande cere xiif daa ciy joxe lu nekk bañ ko ko toggalee ba pare mu war koo lekk kenn ci doomam yi ki gën a ndaw daa di tibb dank suuf sànni ko ci cere ji fekk waa ji raxasu na ba pare ba ñu tegal ko lépp ba mu dank première dank dugal ci gémmiñam fekk xamul woon ne cere ji dafa am suuf loolu mooy maishatan danka sunu borom nee na téereem bi buñ ko bàyyee rek dund gu mel dund gu mel noonu xoolal léegi-léegi maa ngi déglu journal France 24 sondage yi ñu mujj a def mooy àddina bi ñi ëpp ñiy tox jigéen ñi la àddina bi li ëpp ci ñiy utiliser yàmba jigéen ñi la àdduna boo xam ne jigéen ña fa nekk ñoo gën a yàqu te xam ngeen islam fu mu teg jigéen waykat yi sax dañ ne al umm madrasa te kan mooy nekk umm mooy jigéen jigéen école la imagine leen kon école yi suñ baaxul ndax ña fay génn danañ baax looloo tax nit ñi war a delsiwaat nit ñi li leen war a defar mooy li yàlla indi mooy téereem bi yàlla nee na sama téere bi su ngeen ko dummooyoo rek daa di dund dund gu karaj loolu fekkoon ne sax ci àdduna lay yem waaye ëllëg yowmal xiyaam kooku bàyyi woon téere yàlla bi yàlla nee na su ma koy dekkil day gumba wa naxsuruhu yowmal qiyaamati ama day laaj yàlla nag bu dekkee yowmal xiyaam ne yàlla lu tax ma gumba ndax man bi may faatu nekk ci àdduna dama doon gis yàlla tontu bi mu koy tontu mooy sabab bi nga dummoowoo yoon sama téere ñàkk a xool téere bi ñàkk koo jàng ñàkk a def tadabbur wa taammul looloo tax tey fii ci alaxira ma dekkil la nga silmaxa noonu nga sàggane woon téere bi noonu nga ko bàyyee woon noonu lañ lay bàyyee tey fa kazalika al yawma tunsa ni nga fàtte woon téere bi sànni ko sa ginnaaw noonu lañ lay sànnee tey fii ci alaxira fàtte la kon mbokk julit yi qaala abu suaad fi qawlihi taala law anzalna hada alquran ala jabal la raaytahu xaashian mutasaddian min xasyati llah wa tilka alamthalu nadribuha linnas laallahum yatafakkarun surat alxasr aya 21 borom bi nee na alquran bi ñuy wax suñ ko wàcce woon ci xol wala ci montagne ala jabal ak montagne ni mu mel ak ni mu toll suñ ci wàcce woon alquran borom bi nee na di nga seen montagne yi ñuy toroxlu xaasi an di xotteeku ndax ragal yàlla borom xam-xam bi mu ne bi yàlla di wax aaya bi mu ne araada bihi tawbiixul insaan ala qaswati qalbi li yàlla bëgg a wax mooy dafa joxoñ doomu aadama jokkor bi ko jam ko baaraam ne ko xam nga lu tax ñu wàcce ci montagne alquran ñu wàcce ko ci montagne montagne bi toj yow doomu aadama ñu wàcce ci sa xol alquran nga ni tekk c'est parce que sa xol bi moo wow wa adami taxus taxussuihi inda tilawati wa qillati tadabburihi fiihi feebar yi sa xol bi dajale ba alquran mënu koo yëngal mooy xol bi moo wow moo tax boo koy jàng doo am xusu doo toroxlu ndax ñu bari ci ñun bu ñuy jàng alxuraan dañuy jàng bind yi ci kaw rek di dem ndax loolu waa ji doon wax ne lu muy ñuul ñuul xaw ma ci dara romb rek ci kaw wa qillati tadabburihi day néew ci ñun ñuy jàng alxuraan ñoo xam ne bu ñu eggee ci aaya yi dañ koy settantal mu ne wa qaala taala fi iraadihi wa tadabburi ayaatihi alkawniya afalam yasiru fi l ard fatakunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw aadanun yasmacuuna biha fa innaha la tacma al absar walakin tacma alqulubu allati fi sudur hajj 46 sunu borom nee na ci ñooñu nga xam ne dañoo dummoo yu téere bi ba seen xol yi wow da ngay gis tey ci sunu réew mii nit ñi ni ñuy liiree journaux yi chaque jour nga gis journal yi dañuy feesee boo xëyee suba gis journaux yi dañuy fees dal nga romb ci grand place yi jaayikaay yi magasin yi nga gis ay nit toog sa waay yor ay téere di ko jàng jàng boo xam ne waa ji boo ñëwoon ne ko jaay ma sax du la faale waaye ak a néew ci fajar googu ci suba teel boobu nga gis jullit buy jàng alxuraan ak a néew wax naa leen xutba bi passé benn chauffeur taxi dafa daw ba sonn ndeysaan amul client amul droite génne kaamilam wéeru ci saisam génne kaamil bi di jàng benn waaye ñëw daal di koy néew ne ko amaata ahat ndax dafa am ku dee mu ne ko naam ne ko man huwa mu ne ko maata qulubuna dafa am ku dee mu ne waaw kan la mu ne suñu xol yee dee on a dëgg xol yee dee ba suñu jàng alxuraan léegi ku dee rek moo tax ñu jàng alxuraan ku dee ku dee rek ñu dajaloo léegi sax dafa am ay GIE groupe bu kaamil waaw saa yoo gisee fajar ay nit dem yor kaamil dañuy jàngi dafa am ku dee wala dafa am ku tiit wala dafa am kuy waaj a toxu këram su dul loolu alxuraan amul place ci sunu dund ci suñ demee ci facebook bi benn waaye dafay wane ñaari photo mu wane alxuraan wane facebook fan moo ëpp nit nit ñi buuxante facebook alxuraan bi benn nit moo fa toog mu wane jàkka ji wane buntu banque bi buntu banque bi fees del jàkka ji ñetti nit ñoo fa nekk kooku sax dafa baax parce que buntu banque la wane ak a neexoon mu indi buntu stade mbokk yi sunu borom nee na ndax doxu leen ci kaw suuf moo ngi laaj moo ngi posé question ñi dummooyu alquran mu ne leen afalam yasiru fil ard xanaa doxu leen ci kaw suuf su ngeen doxoon ci kaw suuf bu baax jàngat ngeen am ay xol yoo xam ne dañoo am ay xol yoo xam ne dañuy xalaat fa takunu lahum qulubun yaqiluuna biha ay xol yoo xam ne su xol yi xalaatee day jox xel yi xel yi kapte ñu am ay nopp yoo xam ne aw aazaanun yasmauna biha wala ñu am nopp yoo xam ne dinañ ci dégg ñaar yi rek buñ ko amoon xol ak nopp yu dégg kon li nu dal din dal loo tax gis nga waa safara yal nañ ci yàlla musal suñu duggee safara ba pare dañuy réccu lan la ñuy wax ci suratul mulk law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabi sair cey law kunna nasma cey suñ doon dégg ndeke am nañu ay nopp waaye li yàlla wax mooy dégg am nañu ay nopp waaye duñ dégg lan la ñuy dégg mooy mbirum àdduna rek mbirum àdduna waaye mbir mu jëm ci yàlla kenn du dégg moo tax waa safara bu nu duggee safara lu ñuy wax law kunna nasma cey ñun buñ doon dégg mooy doon nañ wax ak ñoom waaye dañoo gënoon dégg leneen lañ doon dégg aw naqil wala nuy xalaat ci sunu xel yi kon tey fii ci safara ma kunna fi ashaabi sair du nekk tey nitu safara kon ndeke ku ku yàlla may nopp yàlla may la xel may la xol ñetti jumtukaay yi jëriñoo woo ko ci sa àdduna ba nga dem alaxira xam nga fi ngay mujjee sunu borom nee na xanaa da ngeen amul woon ay xol yu ngeen di xalaatee nopp yu ngeen di dégge waaye déglul aaya bi mu ne fa innaha la taamal absar li wóor tey mbir mooy bët du gumba bët du gumba de bët du gumba ñaata accident nga gis oto fiir gumba ñaata at ngay toog ñaata at ngay toog doo dégg oto fiir gumba oto ñi muy tël ñëpp ci kaw tali bi dañuy xool ak seen ñaari bët kon ndeke du bët mooy gis moo tax yàlla ne fa innaha la taamal absar li wóor tey mbir yàlla nee na bët du gumba ñu ne yàlla lan mooy gumba mu ne walakin taama alqulub allati fi sudur xol bi bët yi mu am war a gis ci biir xol bi foofu la ngumba gi am waaye du bët yi ci kaw loolu nag foo koy jàngee mooy jàngal rek histoire soo xëyee weer wu nekk oto ñaata gumba la tël at mi ñaata oto ñoor oto yi ñaata gumba lañ rey jàng ko ci at bi dinañ toog at ba mu jeex oto du laal gumba waaye oto yi ñaata nit la ñuy rey yu am bët kon du bët bi waaye xol bi la xol yi ñooy gis sunu borom subhanahu wa taala ñaareel bu mu wax moo tax xol yi dee mooy kasaratul maasi bàkkaar yu bari hadisu abu hurayra radiallahu anhu wa ardaahu mu ne qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam inna almumina ida aznaba kaanat nakta sawda fi qalbi inna almumina yenente bi nee na way gëm yàlla bi jullit bi su defee bàkkaar su moyee yàlla day nekk benn tomb bu ñuul ci xolam soo moyee yàlla rek benn tomb bu ñuul daal di am ci sa xol mu ne fa in taaba wa nazaa wastaghfara sa xola su waa ji jégguloo tuub dellu ci yàlla rëccu mu ne ñu daal di effacer tomb bu ñuul boobu waaye wa in zaada zaadat hatta ya'luwa qalbuhu zakarran الذي ذكره الله عز وجل في قرآن الكريم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني بودي واجي توبل دا ديف بكار با pare fetterlu di fëgg dënnam comme tey niñ koy defee di ngand ngandlu di wane ne man la tuubul ñu bàyyi ko fa mu defaat ñu defaat beneen tomb mu defaat ñu defaat beneen tomb ba xol bi daal di ñuul kukk daal di wow koŋ nee na ñooñu la yàlla di wax ci alquran ci suratul mutaffifin aya 14 sunu borom nee na ñii kat li tax seen xol yi wow mooy xol yi dañoo xomaat kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun ñu ne yàlla lu xomaat loo xol yi mu ne bàkkaar yi ñoo bëri kon tey fii nu toll ci ñaawteef yi di am ci xol yi wow nit ñi dem ba amatuñu yërmande kenn dootul yërëm kenn fan la nu toll ndax warunoo dëpp aha kay qaala almuhaasibi i'lam anna zunub turisu lgafla walgafla turisu lqaswa والقسوة تورث البعد من الله والبعد من الله يورث النار وإنما يتفكر في هذا الأحياء وأما الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا سرين بنينا يقلن بكار يبري دفاي دوغل تشغنت ci xol ñak conscience ki def bakkar yu bari doo ko fekk mukk mu am conscience mu ne càggante googu tuurisul qaswa dafay waral xol bu wow bu nit sàgganee ñooñu yàlla naan ulaayika humul gaafiluun ñii ñoo ñàkk yëg-yëg bàkkaar yi bu baree dootoo am yëg-yëg ci yàlla soo ñàkkee yëg-yëg ci yàlla sa xol bi dafay wow mu ne xol bi bu wowee lan la lay jural mooy nga sori yàlla al bu'du min allah da ngay sori yàlla lan la lay jural sori yàlla lan la lay jural mooy nga jege safara nee na lii nag wax ji ku ci xalaat mooy ku dund waaye ku dee moom suuli nañ la ba pare wax ji ku ci xalaat mooy ku dund mooy koo xam ne dana yëg yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu lan moo tax ñii moom seen xol yi dee mu ne wa amal amwaat bu dee ñi dee faqad amaatu anfusahum ñoom dañoo rey seen bopp lan lañu rey seen bopp bi hubbi dunya ndax bëgg adduna adduna lañ topp ba seen xol yi wow moo tax dootoo leen wax yàlla dootoo leen wax diine dootoo leen waar ba mu jeexital ci ñoom أيها الأحباب من فقسوة القلب من ثماء من ثمرات المعاصي قال عبد الله بن مبارك رأيت الذنوب تميت القلوب بك جلدي أنا قلب واو دفع فم بايكو فن لا بايكو موي أي بكاري بري سرين بتر عبد الله مبارك نينا من دي جسنا نه بكاري بري دفاي راي خول waaye waqad yurisu zulla idmaanuha bakkaar yu bari lan lay jural nit mooy mu indil ko torox tànge wa tarku zunub xayaatul qulub bàyyi bakkaar mooy tax xol dund waa ji ba mu demee ci imam shafi sakawtu ila su xifzi muy jàng mënta mokkal muy jàng mënta mokkal mu dem ci imam shafi ne ko damay jàng du ma mokkal su ma ñëwee ci kër gi man nafar du mokk ma ubbi téere bi rey sama bopp mu ne ko da ngay bàyyi mooy yàlla booy mooy yàlla doo jàng lu mokk sooy mooy yàlla doo liggéey lu am barke ndax sobe ngay àndal loo dugg mu yàqu loo laal mu yàqu parce que da ngaa salte da ngaa taq soo bëggee li ngay liggéey am barke da ngay set da ngay laab da ngay dégg fii yenn saa yi ouvrier bu ñëw ci yow ne la ñaanal ma atelier bi dox atelier bi du dox parce que yow doxoo soo bëggee atelier bi dox da ngay dox jëm ci yàlla waaw ñaanal moom li may def am barke du am barke c'est parce que li ngay liggéey dugaloo ko fu sell kon li ngay liggéey du am barke du dox mukk c'est parce que ay bakkaar ñoo ci laxasu ixwatal iman aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله النقطة الثالثة نتيلو تومب موي التفريط في الفرائض دا فام لو خامني دا فاي راي خول لان مoko waral moy da nga sagane farata yi yalla faratal ci kaw sa kaw yemoo ci sàggane farata yi waaye wanti haakil muharramat da ngay këtt bunt yu araam yi di dem su jaam bi demee ba sàggane li yàlla farataal ci kawam jaamu bi ko yàlla teg julli gi saraxe tudd yàlla jàng alquran def ay azkar jaamu yàlla yooyu yàlla farataal sa kaw nga koy xët sàggane ko doo ko def wala soo koy def nu mu la neexee nga koy def yemuñ ci loolu waaye ngay xëtt buntu bakkaar yi borom bi wax na ci suratul maida aya 13 lan moo tax mu alagoon xeet yu njëkk ya mu ne fa bima naqdihim mithaquhum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya gis nga lan mooy sabab bi fa bima naqdihim mithaquhum keroog ba ñu xëttee contrat bu ñu waxanteeg yàlla mooy jaamu ko ñu dagg ko sànni fële borom bi nee na laannaahum dama leen a rëbb lan mooy rëbb bi mooy dama leen a soril sama yërmande yow ma ci loolu waaye wa jaalnaa qulubahum qaasiya ma wowal seen xol ya kon ñàkk a jaamu yàlla farata yi yàlla farataal sa kaw julli yi jaamu yàlla gi la yàlla sant saa yoo ko sàgganee yëgal ne sa xol xol bu wow la lay jural borom bi tabaraka wa taala nee na fa bima naqdihim mithaquhum wa kufrihim bi ayati llah wa qatlihim alambiya bi gayri haq wa qawlihim qulubuna gulf bal taba allahu alayha bi kufrihim fala yuminuna illa qalila suratu nisa aya 155 borom bi nee na fecc gi ñu fecc kóllëre gi ñu waxante woon ak man man borom bi ma signé contrat ak ñoom dañ ma war a jaamu ñu xëtt ko yemuñ ci waaye ma wàcce samay téere ñu weddi téere ya yemuñ ci ma yónnee ay yonent ñu rey yonent ya ñett lañ def moo tax yàlla kaste seen xol yi bu ci njëkk mooy lan fecc contrat seen digganteeg seen borom ñaareel bi mooy weddi téere yi leen yàlla joxoon ñetteel mooy rey yonent yi yàlla di wax ak ñoom ñu ne ko wa qaalu qulubuna gulf yàlla di wax ak ñoom ñu ne ko yàlla ñun suñu xol yi dañoo tëju mënuñu laa dégg li ngay wax ñun mënuñu ko dégg yàlla mu ne bal taba allahu alayha man yàlla maa ko kaste maa ko tëj jàng ngeen alquran mu ne xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawa wa lahum azabun azim sunu borom jalla jalaaluhu mu ne man yàlla maa kaste xol yi waaye dafa am sabab lu tax mu ne bi kufrihim loola borom xam-xam yi naan baa u sabab yi lan moo tax yàlla tëj xol yi bi sababi kufrihim sabab bi mooy wedd gi ñu weddi yàlla moo tax yàlla tëj xol yi waaye yàlla nee na fala yuminuuna illa qalilan du ñu gëm yàlla lu dul lu néew ci ñoom ñooy rëcc di ñëwaat ñeneen ñëpp safara lañ jëm ñeenteelu tomb mooy al inshigaalu bi dunia yitte woo àddina day tax xol wow àdduna rek fuñ la gis yaa ngi daw mbirum àdduna rek kenn du la fekk ci diini doo julli waxtu doo dem jàkk doo jàng alquran doo tudd yàlla amoo temps fooy wéete sa boroom doo woor doo naafila doo julli guddi àdduna rek di daw rek foo jaar yàlla kasta sa xol hadisu ibnu mas'ud yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wa inna qaswa wa wazu lqulub fil fidaa day ni sunu yonent nee na ñaar dafay rey xol daf koy wowal nee na lu tax loolu ñaar ñooñu di wowal xol di ko rey mu ne xaysu yutlaau qarna shaytaan rabiata wa mudar seytaane dafa am ñaari doom kenn kaa ngi tudd rabia kenn kaa ngi tudd mudar wala seytaane bopp bi dafa am ñaari béjjën benn cat bi mu ngi tudd rabia benn bi tudd mudar soo bëggee àdduna nag ñaar yooyu la lay mbëkkee ñaar yooyu la lay topp di la ko jam ba yow mal xiyaam dootoo gindeteeku kon bëgg àdduna day gàllankoor nit day tax doomu aadama xol bi wow ibnul qayim nee na mata raayta al qalb qad tarxala anhu hubbullah wal istidaadu liqaa'ihi saa yoo gisee nit bëgg yàlla dañ ci xolam préparé dajeeg yàlla dañ ci xolam wa wa xalla fihi hubbul maxluq wa rida bilxayaati dunia wa itmaaniya biha faalam annahu qad xasira biha saa yoo gisee nit bëgg yàlla dañ ci xolam préparé dajeeg yàlla dañ ci xolam nee na xol boobu la ca dugg mooy bëgg mbindeef yi bëgg ay moroomam bëgg poñetu àdduna loolu ngeen dégg alquran naan zuyina linnaas hubbu sahawaat min annisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس دولون يالله تارلال نيني دنج لنا تارلال زين للناس حب الشهوات بغ بانيخي lu neex rek mina nisa soxna yi wal banin doom wal qanaatiir al muqantara mooy alal ju ne gàññ jalu da ngay dégg tey loolu yàlla naan wal qanaatiir al muqantara min alzahabi wal fidda wal xayl al musawama ak ay fas yu ñu numéroté xoolal tey doomu aadama yi ni ñu bëggee jur yi yàlla loolu la waxoon da ngay dégg bali bali da ngay xar moo xam ne kenn du ko lekk kenn du ko lekk ay baramaan ginaar guñ dul rey waaw ay pitax yuñ dul lekk yar rek di jaay benn deux cent cinquante mille benn trois millions loolu la tey nit ñi di tiitaroo bëgg àdduna bëgg ay jur waaye yaa ngi noonu fekkee na xamuñoon lu muy tekki wal xaylil musawama wal an'am jur yaa ngokk tey foo dugg ñu ngi jur ñëpp ay yarkat lañ pour lan yàlla moo ko waxoon wala xars ak ay tool koo gis rek boqaale na benn tool toog di xaar wal xaylil musawama ah wal xars waaye xoolal aaya bu fu muy tere loolu yëpp gaa yi bëgg di ko dajale yàlla mu ne zalika mataul xayatu dunia loolu yëpp adduna kese la adduna kese te bala ngay xam adduna nga dee faatu léegi incha suñu sëlmalee léegi jumaa ji nekk suñu wet dañ fay jullee léegi ku faatu ci morgue bi la fanaan biig suñu benn wéy jur bu jigéen la yal na ko yàlla yërëm gis nga noonu rek la ñuy def bëgg àdduna waaye lépp dañ ko fi ba fu ñu jëm ñu ngi jëm ci suñu boroom zalika mataul xayaatu dunia fii ngeen koy bàyyi dara du leen topp kon lépp lu la tardeel ci jëm ci yàlla yaa ngi lor sa bopp lépp lu la tardeel pour nga jëm ci yàlla xamal ne am nga problème kon jot nañu def muhaasaba suñu bopp saa yu gisee xol càggante dugg ci xol bi wow yëgal ne borom xol bi dafa sori yàlla dafa bëgg àdduna sori yàlla ak bëgg àdduna dafay soril nit dafay rey xolu nit saa yu gisee ab jaam mbirum yàlla yitteel ko diineem ñor ko da ngay fekk xol bi tooy da ngay xeet fekk xol bu baax xol buy dund da ngay fekk jëmm ju leer yaram wu naññ tànk yu sawar pour dem jaamu ji yàlla waaye gis nga borom xol bu wow même su julli jotee sax da ngay gis muy yéex yéexlu donte ne ci buntu jàkka ji la dëkk da ngay gis muy yéex yéexlu danañu nodd mu toog rek ba waxtu bi ba ñuy liqaam nga gis muy doog a jàpp balaa muy ñëw ci jàkka ji fekk ñetti rakka raw na ko wala ñaar wala benn c'est parce que lan yaram bi moo sawarul pour jaamu yàlla buñ ne asalaamaaleykum mu ne bërët du wax sax du def sax ay azkar amul ñaan c'est parce que xol bi moo wow musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men mouhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men hannde wonno asbab kaswatul qalb woni sababuji ɗi ngannduɗa ina jibina ina addane ɓi adama ɓernde nde yoora walla ina adda e makko o welsindo dewal allah walla ina adda e makko jikku bonɗo ɗeɗo geɗe tati sababuji ɗi holko saboto ɗum holko addata ɗum woni welsindade deftere allah nde julɗo so welsindima deftere allah o natti jangude deftere nde o natti nde ƴewtinade o natti nde nande o natti ƴeewde oɗo aduna mo wuurata ko jiimi ko jiimi e makko ko o natti ɗum ƴeewde holko addata e makko ɓernde makko yoorat alquran nattat wawandemo haydara ay waaji wontamo naf sa wiyomo hul allah kala biyowomo hul allah o waɗat on gaño an a wayri yiide kaari mi wayri mu yiide o toon mi yata toon kanko sa yimo tan uyima hul allah kanko ne wayno allah allah kanko jeeyi allah ay parce que ko ɓerɗe ɗe maayi ɗum tagi hannde en yettima e nokku mo ngannduɗa hay goto wiyata en kule allah kala wiyowomo kul- hul allah on wonat gañoma a wattamo sehil kono so tawi no waaji o finat omo ro- omo rokkuma kaalis o wonat sehil ma haadi joni omo wima hul allah ko gaño ma o wonata ɗum noon holko saabi ɗum ko allah wi noon allah wi wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan danka kala mo luurndi kala mo woppi nde ɗo deftere nde ganduɗa ko allah tellini allah jeyi kala mo woppi deftere nde allah wi a wuuray gurdam ndam moƴƴani gurdam mette gurdam caɗele hokka tagi dañɗa caɗele e gurdam ma ƴewto hoorema ko an woppi ko allah yamirnoma ko ganda goto biyeteɗo abou soad o wi allahu subhanahu wa taala oɗo aya mo makatomo wiya law anzalna hatha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khasi'an mutasaddi'an min khasiyati llah wa tilka al amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun o wi allah yiɗi haalde oɗo aya ina haalday ɓi adama holko allah wiyatamo allah ina waajo ɓi adama hade ɓernde makko yorde so woppi deftere allah nde wi arada bihi tawbihu l insan ala kaswati qalbi allah haali o wi holko tagi o ɓi adama ɓernde makko nde yoori koko woppi deftere allah nde ko on jangi histoire malik ibnu dinar malik ibnu dinar bakkatuji o waɗi ha ɓernde nde maayi yarde sangara jamma e ñalawma allah arsiguinonomo ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo goto debbo o yehi o yaroyi omo arta o ari ha e galle he cukalel ngel jaɓɓimo taw ko jarɗo ha o yiyata o jaggi cukalel ngel omo weddo omo teɓɓo omo weddo omo teɓɓo omo weddo omo teɓɓo te ko jarɗo o weddi tan o natti yiide cukalel ngel cukalel ngel yani e perongo maayi o jiime cukalel ngel omo woya ha yimɓe ngari kepti cukalel ngel looti ngel juuli ngel ubboyi o wi mi yaray allah na wara ɓingelam handema mi yar hawa anda mi yarano ko joni jarmi o yehi o yari hawa natti wawde darade ɓe ƴettimo ɓe nannimo e suudu o leli o natti darade o natti yiide o natti andude ɗo woni o leli jamma omo ɗaani o hoyɗi yawma alqiyamati o yi mbarodi ina ridda mo o ƴeewi juuteni ndi o annda ɗo haaɗi o ƴeewi dow asaman o yiyani hoore nde ɗo haaɗi o ƴeewi mbarodi ndi no way mawnude ɓuttinde ni ina memoyi dow asaman uyyo o dogi o tawi gorko goto ina jooɗi na ɓorni wutte danejo mawɗo ne jogui waare ranere o wi omo suuɗo e gorko o gorko o wimo mi wawama dandude dog o wirti gorko o o dogi hawoyi yimɓe ne goni to o faye yimɓe ɓe o tawi ɗon toon ko jahannama woni toon o rutti ɗum fof mbarodi ndi ina rewe caggal makko ko dogata ko fof mbarodi ndi ina rewe caggal makko paane mo kala ko dogi mbarodi ndi lada ko to- ko foti noon ha o nani daaɗe o nani daaɗe o dogi o fayi to daaɗe to nde o yettoto daaɗe ɗe o yi rido goto ina firliti rido o uddita nde rido o uddita tan ɓiyi ko maayiɗo o ari dari wi mbarodi ndi to acca mbarodi ndi ruttiti tan o dogi o ari o ƴetti ɓinguel ngel o fawe becce makko ɓiɗɗo wimo alam yani lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikri llahi wama nazala min alhaq اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والصحداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد